Pape Diop mom, famille choisir moi, camp Macky Sall parce que nous ak Macky Sall benn lañ xam nga ben lañ quoi c'est la même formation politique euh, c'est la même idéologie voilà Ben le, masul bett kenn ba pare lii c'était prémédité dañoo war di xalaat quoi xam nga président Ousmane Sonko sax waxoon na ko même bu ko waxutoon sax man loolu xalaat naa ko bu yàgg dañuy programmer woon quatre députés pour jéem a jox Pape Diop benn député parce que pap Diop rek lañu am yaakaar ni kooku mom mo wara mëna mën ñëw rejoindre leen lolu mom dañ ci am certitude ñeneen ñi nak Man nañoo dem <laughs> comme niko président Ousmane Sonko waxé même ci bir coalition Yewwi wala Wallu muy l'intercoalition bi amna ay nit ñoo xamné ils sont capables de rejoindre Macky Sall lolu c'est possible xam nga mais Pape Diop bi moom dafa leron nañ parce que bobu ñom dañ ci am certitude motax ñu fexé ba jox len 82 députés avec la complicité de Antoine Diom ak les juges moy ñi nga xam ñom ñoo doon compter affaire yeeg quoi ak euh, président tribunal euh, cour d'appel bi quoi bu Dakar xam nga nga xam mo doon joxe résultat provisoire conseil constitutionnel nous ken waxatu len mom dañ koy confirmer ba mu confirmer wu leer nañ ñi dëgër moi moytuwul sax ñu député ne député muy 83 Pape de 84 <laughs> donc euh, dama bëgg wone rek ne conseil constitutionnel lu neex Macky Sall rek lañ fi lañ fi li indi lu am Sénégal ñom ñoo fi indi moy euh, code électoral bi wax liste. Euh, ci député yeeg yeneen liste yu manti doon ci wàllu élection muy local ak yooyu li koy composé mooy ay titulaire ak ay suppléant donc ñoom ñu ñëw def loo xam ne masul am Sénégal jël suppléant yi euh, yóbbu leen <laughs> ñu remplacer titulaire yi voilà jël titulaire yi la jiital leen ne dañoo éliminer ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, seen ay suppléant juste rek pour xeex Ousmane Sonko mu bañ a bokk ci élection yi far nag gis nga son Sonko moom découragé wul ba pare tombewul ci seen piège jóg na dem campagne yi def campagne boo xam ne ñoom ñuy wax ne ay titulaire lañ sax defuñ ko ak ñeneen ñi nga xam ne dañuy wax ne ay opposant lañ au lieu que ñu opposé Macky lu nekk ci télé yeeg rajo yi ak seen campagne bi yëpp di saaga son Sonko moo taxit ñoom it gis nañ ko donc daal mbir mi noonu demee man nag mbiru Pape Diop bi lenn rek moo ma ci jaaxal ko le fait que mu bëgg a déclencher benn xuloo ak sénégalais yow looy xuloo yow transhumé nga kañ jarul ngay njëkkante di xoloog nit ñi naan ay ah man ragaluma ku ma saagaak ay dafa am ñoo xam dañu fee nekk bëgg jël réew mi en notage bëgg a déclencher xuloo boo xam ne day wóor ne moom <laughs> li mu def am na lu ko ciy fekk quoi xam nga boo defee dara mu wóor ne am na lu la ciy fekk da nga naan xaaral ma jiitu jiitu gars yi ci gatsa gatsa bi quoi maanaam ci xeex bi walla ci xuloo bi comme ni ku doon def lu bon rek <laughs> ñu bett la rek nga ne voilà xaaral ma soppi ko sax xuloo benn yoon su laajee xeex sax ma xeex wala ngay jëw nit nit ki bett la nga ne ko waaye maa tay waaw maa tay sax waaw maa ko wax maa tay man la neex xam nga pour affaire bi soppeeku xuloo benn yoon jeex wala mu soppeeku xeex une bon fois pour toutes moom loolu la def mais daal mag mu ñàkk fayda la mag la boo xamante ni du référence jarul sax toog fii di commenter lu yàgg ci ay mbiram parce que ñëpp xam nañ ne Euh, voilà ñoom ak Macky Sall daal benn lañ ñoo bokk nu ñuy gisee réew pour ñoom réew séddoo la xam nga jël alalu Sénégalais yi di seddoo jël suuf Sénégalais yi di seddoo xam nga man ñun mosuma leen a jàppee ay opposant ay Pape Diop ak gisoo sa faux type de Aliou Sow la moom sax moom mu ngi def le compte te mu ngi ne mu naan ay borom xam-xam la de am na doctorat yeeg c'est-à-dire xaw ma docteur Aliou Sow man gëmu yooyu quoi xam nga man pour man xel. ku ko yàlla may rek yow borom xam-xam nga quoi affaire bi du ci ay diplôme ak yooyu quoi ak ay takk ay cravate ak ay sol ay costume bu ñu sonal moom depuis bi mu demee rejoindre Pape Diop ci coalition bi bokk gis-gis ba yokk ci liggéeyam boobu noonu MPD liggéeyam fu mu toog avant élection yi laa la wax même avant campagne bi di ubbi fu mu toog Ousmane Sonko lay attaqué ak waa Yewwi Askan Wi bi élection yi jeexee bañ joxe résultat provisoire yi ba nit ñi di laam-laamee naan Pape Diop dina dem ak du dem mais moom dafa continuer sur cette même lancée di continuer di attaquer Yewwi Askan ba démb ci suba rek maa ngi koy seetaan info matin bu RFM bu bu TFM muy attaquer Yewwi Askan wi at xola xam nga nan leen di oowee yaaw yi yaaw yi askan wi la leen di woowee nee nañ ay yaawikat lañ mais léegi kooku dina bokk ci coalition Pape Diop bi ñu dem ñu am benn député ñu naan Pape Diop dina dem ak du dem ka nga xamante ni moom mooy deuxième ci coalition ba topp rajo yeeg tele yi di saaga yeewi askan wi au lieu que mu attaqué Macky Sall léegi yéen suñu leen waxoon na leen Pape Diop dina dem kon ci <laughs> ci opposition bi yéen est-ce que ko gëm ñoom ñaar ñoo far di kon Aliou Sow moom wane na ne Pape Diop ci Macky Sall la jëm bu yàgg parce que ñoom ah ah dañoo yab Sénégalais yi quoi maanaam dañuy gëmloo Sénégalais yi ne ñoom ay opposant lañ Sénégalais yi di leen votel ci turu opposant xam nga ba pare ndeke ñoom dañoo bëgg suñ amee voix wu yenn Sénégalais yi dem yàkkal ko Macky Sall xam nga loolu wor ak mën a fen ak bon ak yées mante weesu loolu seen droit la nag mais nag du lu rafet gis nga doomi aadama da ngay wax dëgg di doxee dëgg di ko jëfee mënoo ñëw ci sénégalais yi ne da soxla seen ay baat laaj leen ko ci turu opposition ñu jox la ko ba pare nga wor sénégalais yi dem di ko yàkkal Macky Sall Macky Sall di ko nangu kon ñii dañoo ñàkk jom amuñu vergogne fu mu nekk nii xam nañ ne sénégale dañ leen a vomir léegi lu ñuy def mooy di naxante di teg ay deal pour bu leen Sénégalais yi voté ñu mën a defar seen bopp ne dañ fiy toog par force loolu nag mante nekk gis nga seen bëgg toog boobu noonu ngeen bëgg a toog ci réew mi jàpp Sénégalais en otage ay dafa am ñu bëgg jàpp Sénégalais en otage mais yéen yéen a jàpp Sénégalais en otage di sucé directu Sénégalais yi nit ñi dem ba bëggatuñ leen jéppi leen yéen ki nit ñi bëgg xam ngeen ko mooy président Ousmane Sonko ngeen bëgg a forcer nag ne di ngeen toog ci bopp réew mi di teg seen ay pexe seen ay deal foog na dina sotti du mas a sotti du ngeen tous du ngeen dara population sénégalaise bi wala peuple sénégalais bi ñoo leen ëpp doole ñoo leen man bés bu ngeen fi forcé ne da ngeen di toog ci nguur gi di éterniser wu ci nguur gi par force dinañ leen duma duma yu métti te man maa ko wax du ay menace du dara duma nañ leen ñaari yoon ci élection yi wan leen carrément un signal fort ngeen da ngeen dëgër bopp da ngeen bëgg toog forcé parce que yore ngeen gendarmerie yore armée jënd justice bi ne di ngeen fi toog par force loolu mënta nekk xeex bu métti laa la wax day am billaahi wallahi watallaahi du ay menace du dara parce que sénégalais ñoo moom seen réew te oo nañ pacifiquement ngeen bañ dëgër bopp si pacifiquement buñ len leen moy né élection da fay jot ñu jël sen ay carte ñu sanctionné len ba pare nak ngeen yeen da ngeen def ay pexe di transhuméloo ay nit di nax sénégalais yi ñu len di votal ci tour opposition ngeen di dem di diil ak Macky Sall di delluwaat ci Macky Sall di défar ay 82 députés pour Pape Diop ñeu mottali leen 83e député di wor sénégalais yi chaque jour di len nax sénégalais yi nag am na foo xam fa àggee dañuy jamarlo ak yeen té dina saf-sap Uau. Assalamu alaikum rahmatullah.